lal yow mi nekk mbokk mu jigéen yow it góorgóorlu ci yéene ndax yu baree bari dañ koy def mu doon sàkkukaayu tubaa tuyaaba yoo xam ne adduna nit ki mën na cee baax ak àllaaxiraam waaye mu jàpp ni lii moom aada la rek joo ne des ko war a def di ko def noonu su ko defee yéene àndu ca lam ca doon wut du ko ca am yow jigéen ci jamono yi ngay jël ab morso di fompal sa borom kër dàllam yi muy sol na ko yéene lal lépp loo koy defal loo xam ne da ne lii sama borom kër laa koy defal na ko yéene lal joo xam ne tuyaaba nga ciy wut kii def jëf di ca wut tuyaaba du dàcc du dem ba mu yàgg mu ne man sonn ndax xam na ne kam koy defal wala kam ko séqal muy sun borom tabaraka wa taala lépp lum def du sànku fa moom yàlla du sànk jëfi aji jëf lu mu tuuti tuuti ak loo ko xeeb-xeeb loola ci boppam sa dugguk àjjana mën naa doon loola musuwaar bii nga jël fomp ci dàll yi sa dugguk àjjana mën naa doon loola ak ya nga jëf yi ca des yépp la muy bari bari mën naa doon yu sellut waaye bii ñëw doon bu sell nga xam ne yàlla rek a tax nga di ko def sa dugg àjjana tegee ca loola foofu kon bul xeeb dara moo xam sa boroom kër la moo xam sa baay la moo xam sa yaay la la koy defal na sell na yàlla rekk tax lu gën a bari ci waajur yi danañ dem ba màggat tële ki gën ci kuy taxawu yaayam su tëlee ba mën mooy doomam ci jigéen doom ji jigéen jooju jamono ji muy sonn ci yaayam fekk tële na lool amaana naag na sax ba xamatut guddeeg bëccëg lu muy def lu ne doomam jooju moo ko koy defal na sellal yéene jàpp ne lii àjjana mën na cee tukke na ko suturaal na téyew làmmiñ ci yamuy gis ci moom wax yamuy dégg ci moom na ca téyew làmmiñam ndax ñu bari buñ gisee nit ku naag lañuy jàpp ne lii moom projet waxtaane la moom de tey nee na nangam dafa ma doon laaj naan ma ana saa baay dafa ma doon wax ne noonu kañ lañuy def nangam nett li yoo xam ne yu tumuranke la fekk yaa ngi xot ci sutura ak ormay sa waajur kon yow jigéen ji tollu foofu ak sa waajur wu jigéen walla yow góor gi tollu foofu ak sa waajur wu góor fasal yéene ni sa ajjana ci loola la nekk na sell na ko suturaal lépp lu mu soxla lu nekk nanga nga ko def te it xam ne ëllëg foofu mu toll kat fa ngay mujj toll bu boo guddeew fan aajowoo kenn koo xam ne mooy taxaw ci sa wet di la defal lu mel ni loolu yi nga doon defal sa waajur wa kama tadiinu tuddaan loo leble rek looloo lañ day fay sa doom yi jamono yi nga leen di yar di sonn ci ñoom bul jàpp ne mbirum aadala moo xam ne ku jur doom ku ne rek yaa ko war di raxas yaa ko war di defal lii yaa ko war di defal lii na ko yéene lal tuyaaba nga wut ca tuyaaba sa diggante ak sa borom yéene ju sell daal mbokk jullit yi mooy dundal ab xol mooy dundal ab xol mooy tax nit ki lu muy def lu nekk mi ngi ciy teewlu ngërëmul boroomam saa boo xamee ne loola amatut nag day mujj ay jaamu yàllaam day soppi ku nekk aada day mujj soppi nekk aada nga xam ne daal lii waxtu wa jot na naa ko def yemuy jëf ci digganteem ak nit ñi yépp ay aada lay doon ak ay jëflente yoo xam ne yu rafle lay doon ndax la ko lal ca suuf du sàkku toyaaba yéene mooy loo xam ne boo ko dugalee ci mbir moo xam ne aada la woon mu soppi ku jaamu yàlla tuddal naa la léegi lekk ak naan ak nelaw mën nañoo soppiku doon loo xam ne tuyaaba nga cey am yéene moo koy waral kon yéene danga koy dugal ci lu nekkoon aada mu soppiku ibaada mu soppiku jaamu yàlla nga génne yéene ci ak jaamu yàlla mu soppiku aada duutu amati njariñ julli gii ngay julli ci boppam bu fekkoon ne yéene lalu ko ay yëngatu rekk lay doon lépp looy defal nit itam moo xam baay buy def doom juy defal baayam la wala baay buy defal doomam wala ndey juy defal doomam walla eh, kuy defal yaayam lum ca mën a doon bu fekkee yéenee ko lal ci cadre jaamu yàlla lay doon lay dugg bu ca yenn génnee nag aadala la moog li jur gi defante ci mbedd mi benn lay doon kon yéene lu mat a bàyyi xel la mbokki jullit yi